kon mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey suñu bind bu mujj ci suuratul anbiya ci aaya quatre-vingt-onze ci suñu baram di waxee wallati ahsanat farjaha alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi kon ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jël ab téeréem ñi nga koy ñaan yal na yàlla nangul ñu yal na yàlla nangul it ñi nga xam ne ñoo koy jël di ko tuxal di ko tasaari ca àdduna bi ca la nga xamee ne nii mooy sidia wala groupe yaag suñu télévision bi di Islam TV tey jii mooy juróomi fan mooy juróom-ñaari fan ca la nga xamee ne nii moom mooy am juróom-ñett huit tey mooy le huit janvier kon ci deux mille vingt di tombeek fukki fan ak ñett di le treize ca la nga xam ne mooy jumaada al ula ci mille quatre cent quarante et un incha allah kon mu Cheikh Ousmane pare mu jël suñu bind bu njëkk suñu boroom mu ni wallati ahsanat farjaha bokk na ca royukaay ya ka nga xam ni daa fegoon lii di payam bu dee xale yi nga xam ni duñu dégg wolof mooy la nga xam ne mooy fa doomu aadama di àndeeg boroom këram fa fataxnaa fiiha min ruux fa nafaxnaa fiiha min ruuxina ñu daal di cay ëf jaare la ko ca suñu ruux ga muy jibril alayhi salaam wa jaalnaaha wabnaha aayatan lil aalamin ñu def ko moog doomam ja kawtiif ñeel mbindaa fan yi inna haadihi ummatukum ummatan waahida lii day mooy la nga xame ne mooy seen seen doxalin di benn doxalin benn umma day firi lu bari waaye fii mooy milla aw doxalin wa ana rabbakum faabudun man nag may seen boroom na ngeen ma jaamu wa taqatta'u amrahum baynahum waaye ñu dagg ci la nga xam ne mooy seen mbir ca seen diggante kullun ilayna raji'un waaye képp day nekk na loo xam ne ci ñun lay dellu suñun yàlla fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min koo xam ne jëf ne ca yiw yi day boole kook doon ab julit di gëm yàlla fala kufraana li sa'yihi kenn du ko weddil jëfam wa inna lahu katibun ca loolu kay daañ ko ko bindal wa xaraamun ala qaryatin ahlaknaha dana doon xaraamun ay mamnuun mooy loo xam ni lu dul ñàkk amati ci bépp xeet ci bépp dëkk boo xam ni ahlaknaha dañ koo alak annahum la yarji'un na ñoom day duñu delli siwaat mukk àdduna xatta ida futixat yajuuj wa majuuj ba baa ñuy ubbi ñaari giir yooyu kii di yajuuj ak majuuj wa hum min kulli xadabin yansiluun ñoom ñu nekk ci bépp tund doon ñoo xam ne dañuy wàcc di tasaaroo ci kaw suuf mbokk saar bu mag bi ñu nekk suñu boroom jalla wa ala indil nañu ci fam jaar ak lu ëpp fukki ci ay yonent ka ca jiitu mooy suñu baay ibrahim alayhi salaam mu jaar ci yonent yi ba mu joon ci ñi nga xam ne page bi nga gis sa ndeyjoor ma nga leen fay tudd kii nga xam ne mooy ayuba ismail zalkifl idris zannun mu yunus zakariya yaxya suñu borom mu ne ñoom day dañ doon jëkkante ci aw yiw seen àdduna yépp mooy concours ana kan mooy raw ci jaamu yàlla waaye dañ caa boole woon di woo seen boroom fu ñu mën a toll di xemmem ay xéewalam àdduna ak àllaaxira waaye di ragal mbugalam àdduna ak àllaaxira te ñoom day dañoo wommatuloon yàlla toroxlul ko foofu lañ mujjoon àllarba paase doonte ne ñim fi lim ay góor lañu tey nag mu indi ci benn jigéen doonte ne yàlla musul yónni jigéen waaye yonent góor bu mu yónni lam sant góor ña la sant jigéen ña ca mooy ñu gëm ko déggal ko topp ko amma soxna si yàlla joxe misaal mooy maryaama lan la ko yàlla tagge mooy daa fekk la nga xam ni mooy awraam fekk na aw raam ci njaaloo loolee it la ko yàlla sante góor ak jigéen walxaafizina furujahum walxaafizaat góor ak jigéen ci lislaam suñu borom mu ne fekk leen seeni pay ca bu leen njaaloo bu leen njaaloo nag suñu borom mag ñuy jàngal ne na muy sottee mooy bu leen jege njaaloo bu leen jege njaaloo mooy ab wiitaay bu muy am ci góor ak jigéen jaxasoo bu muy am laalante yaram bu muy am yow jigéen del muur sa awra loolu mooy tax nga mën a mucc ba mën a fekk la nga xam ni moom mooy sa fay mi ngi noonu borom bi nee na ci laa yónnee sama yonent ba muy jibril ma ngi koy wax feneen wa fa arsalna ilayha ruuxana fa tamassala laha basharan sawiya yàlla yónni ci moom jibril jibril ñëw ëf baatu mbubam rek ëmb bi déclenché suñu borom def ko aayam ak doomam ndax borom bi mbindaafanam yépp aaya la mu wone ci woon ñetti mbindaafan ki jëkk mooy aadama ci ban la ko jële amul ndey amul baay mu jël ci benn faaram bind ci xawa kon xawa mën nañ wax am na baay ci aadama la jóge waaye amul jigéen gannaaw ba ñun ñépp mu génne ci ci góor ak jigéen li desoon rek mooy mbindaafoon buy jóge ci góor muy jóge ci jigéen ci àndul ak góor mu feeñal ko ci isa ibnu maryam ak yaayam def leen ñu ay kawtéef ci loolu isa it nekkaat kawtéef ci kawtéef yi yàlla di def loo xam ne nii doomu aadama mën na ko imaginer dekkal ku dee woon jël ban bind mu nekk picc feebar ñi daggatoo ci gaanam mu fat leen ila axiri ala kulli xaal suñu borom def na ko kawtiif ñeel nit ak jinne yëpp muy al alamin borom bi nag commencé di ñuy wax gis ngeen ibrahima loot ishaq ba ci ñii ma leen wax ci yonent yëpp seen doxalin benn la man may seen borom jaamu leen ma umma bi benn la ca mbokk jullit yonent yëpp ñoo bokkoon benn mission principale seen mission mooy lan wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudu llah wattanibu taaxut yonent yëpp seen mission moo doon nit ñi jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara gannaaw ba nag suñu borom ni wa kullan jaalna minkum shiratan wa minhaja ku nekk nag yàlla wutal ko ay détails ci wàllu jaaminu yàlla yi waaye cosaanu jaamu yàlla bi benn la cosaanu lañ ca bëgg benn la depuis aadama nuux ibrahim ba ca suñu yonent muhammad alayhi salaam lañ leen santoon mu ñu jaamu yàlla bu ñu ko bokkaaleeg dara lañ ca yaakaar mooy dee tabbi aljanna ragal ca sawara kon benn xeet la borom bi mu ne man may borom man kese jaamu leen ma man kese waaye nit ñi xéewal googu yàlla defaloon leen doomu aadama yi soppi nañ ko dagg diine yàlla ci créé ci seeni xalaatu bopp yokk ca la leen neex dindi ca la leen neexul féetelu ko ay mbooloo moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadis boo xam ne nii ci xadis yi wér la bokk Cheikh Nasruddin Albani di ko wéral ci téere mi silsilatu xadis ak yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yahudi yi day ak nasaraan yi teqalikoo nañ lu ëpp juróom-ñaar fukki parti loolu leen dalit dana ma sa dal sama xeet bala adduna tukki sama xeet daañ tàqalikoo juróom-ñaar fukki parti ak ñett juróom-ñaar fukk ak ñaar yépp safara lañ jëm ba mu des benn benn bu mooy ban mooy bi saxoon ci li ma nekkoon maag samay saxaaba yal na yàlla boole ñu ci loolu mbokk ñooñu ñooy ñi texe mooy alfirqatu najiya ñooñu ñooy ña texe borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñoom ñëpp ci man la ñuy dellu si kan la waaye booy yaakaar yaakaaral yàlla booy sukkandiku sukkandikul ci yàlla suñuy wax da ngay gis nit faatu tey ci rajo bi yàlla na ko suñ càm teeru kee ñu ne yàlla na ko suñ sow teeru lu lay wax rek la de ku mën a faatu yàlla lay teeru yàlla ki malaakam ñoo lay teeru teral la boo ko yeyoo toroxal la boo ko yeyoo loolu ñu bàyyi ko kullun ilina rajiun léegi nag yéefar yi bokk ñu lu ñu doon këyitloo yonent yi waaw bu dee mbugal am ne indi leen ko ñu xool suñu borom ni ay bépp xeet bu ma mbugal day du ñu mën a delluwaat gannaaw di rectifier seen erreur bépp xeet bu ma mbugal jeex na ci amul benn xeet bu yàlla yi mbugal lu dul ña nga naan ay yàlla yéexe ñu tuuti delloo ñu gannaaw ngiree ñu def lu baax te it noonu muy amee au niveau ci xeet yi noonu lay amee ci yéeféer bu mu mën a doon amul kuy dee yàlla kéeféer lu dul bi malaaka yi wàccee ci yow ñaan nga yàlla rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarat e yàlla may ma ma dellu gannaaw dundaat lu dundaat la nga xam ne muy sa ngërëm loolu nag day fekk ne c'est trop tard laa yarji'un mbokku borom bi nag subhanahu wa taala ca lay wax ne képp koo xam ne nii moom dafa def loo xam ne nii lu baax la kii nga xam ne dafa def lu baax boole koo doon ko gëm yàlla ndax li yàlla santaane yépp mënu su ko matal waaye dañ cey def sa kémtalal kattan kooku boo ko boolee ngëm yàlla muy ñaari charte yi tax yàlla nangu jëf mbokk jullit yàlla du nangu benn jëf lu dul ñaar yi daja ci mu nekk saalihaat lan mooy saalihaat mooy yàlla ko jàngal ab yonentam yonent bi jot lu ko xeet gannaaw ba bi nga koy def yàlla tax ñaar yi bu ci manqué yàlla du ko nangu suñu borom mu ne ko mel nii ay jëfam kenn du ko ko weddil fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara lu mën a néew ci lu baax suñu borom nee na kenn du la ko weddil te da nga gis pay ba loolu it moo tax ajjana paye yemuñu bokk ajjana du kër goo xam ni dañu ñëw rek dugg déedéet suñu borom da ko teqale téeméeri daraja doomu aadama bu nekk na say jëf tolloon noonu ngay dëkk ci biir aljanna yal na yàlla boole ñey dëkk firdaws waaw ñooy fa gën a kawe borom boobu subhanahu wa taala nee na nag noonu la mbir biy demee doomu aadama yi dee doomu aadama yi dee ba baa ñuy ubbi yajuuj ak majuuj yajuuj ak majuuj bi ñuy mujj jàng suratul kaaf kii di zul qarnayni dem na ci benn gox ci kaw suuf fa yàlla xam fan la nekk Australie la Canada la Afrique du Sud la fan yàlla xam dem na benn gox ci kaw suuf fekk fa benn xeet am benn chaîne montagne yu leen wër diggante bi aw yoon ne fi ñu ne Zulqarnayni dafa am ñaari giir yu nekk ci gannaaw fi Yaajuj ak Maajuj dañuy ñëw di ñu sonal bés bu nekk ndax doo baare suñ diggante mu ne ah kay def ay pexeem ba baare ko niñ ko jànge woon suratul Kahf mu ne nag bis dana ñëw nag yàlla subhanahu wa taala dindi barrage bi dindi barrage boobee la yonent bi alei salatu salaam waxoon ci liy xew avant bis pecc nee na fukki mbir dana xew avant bis pecc bokk na yi ci gën a feeñ mooy Yaajuj ak Maajuj yàlla dana damm barrage ba Zulqarnayn yi defoon ñu génn ci kaw suuf dana ci bokk masihi dajjal isa ibn maryam dana ñëw dana ci bokk daabatul ard dana ci bokk jant bi fenkee ci sow ila axiri muy ashratu saa al kubra muy kawtif bis penc yi gën a màgg waaye yajuj ak majuj yajuj ak majuj bu ñu génnee suñu borom yàlla subhanahu wa taala da leen di multiplier la ko neex dana la jaaxal nga ne bon bon kaw suuf léegi gars yi avec seen satellite yi gis nañu fépp fan la fi yajuj ak majuj nekk li ñu lay jëkk a wax mbokk julit mbokk suñu borom lu mu bëggul mu feeñ ndax doomu aadama mën na ko gis abadan ñaareel bi it bu la tubaab yi gëmloo ne suuf gis nañu féppam déedéet ala kulli xaal heure bu soobee yàlla yaajuj ak maajuj lim ba ñu nekk yàlla ko xam waaye yàlla dina leen génne multiplier leen ba foo mën a xool ci kaw suuf suñu borom mu ne min kulli xaadam da doon sowwu jant penku jant ndeyjoor càmmoñ dañuy fees dellu suuf loolu bu mu la jaaxal suñu borom yàlla léeg-léeg mu génne ay njéeréer am déet ay criquet ay njéeréer yoo xam ni dañuy jógee traverse Afrique yépp doon presque des milliards de njéeréer suñu borom mooy dem ba mu soob ko rek mu mu dindi leen am déet noonu la koy defee ci lu bëri léeg-léeg ay picc lay doon léeg-léeg sax ay janax lay doon ñu xam histoire Fuuta xam nañ ci boori 75 rek. ay vague da janax ñëwoon nañ fa loo xam ne yéem na leen États-Unis gii yàlla mas na leen a nattoo ay vague da janax ba dañ doon wax ko indi génnu janax ñu jox ko dollar dañuy dem ba suñu borom dindi ko loolee kon yàlla moo xam kañ lay génne Yaajuuj ak Maajuuj kañ lay multiplier Yaajuuj ak Maajuuj ñu tasaaroo ci kaw suuf nag daa di wër fépp ba baa yàlla subhanahu wa taala di dogal leneen ci état bu ashratu saa ñu yàgg fekk ay xutba dañu xam ne yàlla dana génn isa nu mariam julit ñi ñaan yàlla subhanahu wa taala rey leen gannaaw bi indi ay picc picc yi daal di leen génne ci kaw suuf sànni leen ci géej gi lay xew doog a xew ba àdduna doog a cukki mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fiikum suñu borom mu ne waqtaraba alwa'du alxaq jege si ne day digub dëgg boobee fa ida hiya shaaxisatun absaaru alladina kafaru ci noonu rek day la nay nekk na jajj mooy buqeeku boo xam ne du mën a xefeti gisub ña nga xam ne ay yéeféer lañu ñu boole ci naan yaa waylana qad kunna fi gaflatin min hada ñun day nekkoon nañ ci càggante ci mbir mi bal kunna zalimin li am kay mooy ñun nekkoon nañ ay tooñkat innakum wa ma taabuduuna min duni illah yii nag li ngeen di jaamu ci du yàlla day xasabu jahannam yéenay nekk mattum waa mattum jahannam antum laha waaridun da ngeen nekk ñoo xam ne ñuy tabbi lu ñu ci biir sawara law kaana haulaai alihatan ma waraduha ñii ngeen di jaamu buñ doon ay yàlla duñu dugg sawara wa kullun fiha xaalidun ci képp day dina nekk koy sax ci sawara ba faw lahum fiha zafir dana leen ci ñeel la nga xam ne nii mooy ay binni mooy nokk yu ñuy génne wahum fiha la yasmaun te ñoom biir safara duñ fa dégg inna allazina sabaqat lahum minna alxusna waaye ñi nga xam ne jiitu woon na ñeel leen mu bawoo ci ñun la nga xam ne muy ak njëkk day ulaika anha mubadun ñoom day dañu nekk ñu ñu soril sa war a soose li nga noonu mbokk suñu borom mu ne bi su penc mi ngi jege si ca aaya yi bi muy wàcc ak léegi mille quatre cent et quelque wàññeeku na ci kon bi su penc gën na jege doonte ne ni anas ibnu malik radiallahu anhu nee na rasul sallallahu alayhi sallam day benn kaw kaw ñu jóge na càll ba ñëw ne na ko hey muhammad mu ne ko naam mu ne ko mata saa wa bis penc kañ la gis ngeen rasul sallallahu alayhi sallam wax ko wax boo xam ne ku ne ci war koo bàyyi xel mooy lan nga waajal bis penc te doomu aadama bi it dafa war a xalaat lan la waajal bis penc loolu muy benn ñaareel bi it mooy bisu penc daa am lu la fay yóbbu la la fay yóbbu mooy sag dee te ngalawaay xamal ne sag dee mi ngi jege si amul benn bis booy paase lu dul dee gën na la jege amul benn bis booy romb lu dul dee gën na la jege kon mi ngi jege si ñu war koo waajal bàyyi ko xel suñu borom nag nee na bisu penc ba bu ñëwee yéeféer yi buñ génnee seen bàmmeel ba seen bët yi na bokk di gis kenn du xesaat kenn du mën a xef ngir tiitaange bi su keroog su ko defee ñu boole ci naan alkaanga ñeel nañu ndax dañoo sàggane woon suñu rajab tey bii loolu mooy xalaatu yéeféer amma yu julit foo toll yaa ngi xalaat allaxira yaa ngi fàttali ko allaxira léegi ci timis lañ taxaw ci kanamu borom bi ñun ñëpp daa dina yàlla ay yow maliki yawmi ddin aw maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla bis penc bii di ñëw ci sunu kanam yàlla day yow rek yaa ko moom moom la fay xew yow la ñuy jaamu bokkaale wuñu ak dara amma yéeféer ak jullit bu comprendreul diineem dañoo nekk fii rëf la yeewoo sa programme mu 24 heures yépp mooy dajale alalu adduna dajale taaru adduna kër kër ci adduna sa diine nga sànni ko sa gannaaw ak foo mën a jaar loo mën a dajale ci adduna da nga daje gis boo xam ne dañu la ah sa waay fii nga mën a yem président nga général nga lu mu mën a doon ah sëñ bi dajale bi day jeex na tey fii nga mën a yem léegi nag ca ngay doog a xam réalité man lan moo taxoon yàlla indi ma ci kaw suuf ndekete yootu nekkuma ci woon nekkuma ci woon yaa ngi nekkoon ci loo xam ne nii ay futilité la du la amal benn njëriñ kenn di dem àllaaxira ñu koy laaj ñaata étage nga bàyyi yeeg ñaata nangam liñ lay laaj mooy yàlla yónni woon na ci yow ab yonent naka nga def ak yonent boobu ñun nekkul naa fi rëf la nekkoon nañ ci sàggane lii bal ku non zalimin dañoo nekkoon di tooñ suñu boroom di tooñ suñu bopp jalla wa ala te mooy bañ bàyyee ah la nga xam ne mooy jaamu suñu borom borom boobu nag ni xam leen ne li ngeen di jaamu ca du yàlla yépp yéene àndu dugg biir sawara ca loolu bokk na yàlla lu muy naqar la yéeféer yi xërëm yi ñu yaakaaroon di ko jaamu da koy booleeg ñoom tabbal biir sawara suñu borom mu ne ngeen xam ne bu ñu doon ay yàlla du ngeen ànd tabbi biir sawara te yéen da ngeen fay sax ba faw loolu bi mu amee nag yéeféer yi makka yi kontaan ne nag liñ doon wax ci waa ji nag gis nañ ko tey nee na li ñuy jaamu ci yàlla yépp dañuy ànd ak moom dem sawara ñun ñi ngi jaamu malaaka yi yahudi yaa ngi jaamu Uzayru chrétien yaa ngi jaamu Isa ibn Maryam mu ne dañuy dem dañuy dem sawara ñoom ñoom ñëpp suñu borom mu ne leen déedéet ña nga xam ne yàlla jiitaloon na ci ñoom alxusna muy asfaada ca lilladina ahsanu alxusna muy aljanna ña yàlla dogaloon na dañuy texe ñooñu àjjana lañu ñu dem ba génn àdduna muy benn wala fekk ne yéeguñu tiinuñu diglewuñu muy malaaka yi ñooñu kay dañ leen di sori sawara dañ leen di sori sawara loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax muy wane it nag ne képp koo xam ne ñi ngi koy defal ak jaamu jaamu googee moom mu yëg ko ba pare d'accord ca moom ña koy jaamu ñooy ànd sawara yonent bi joxoon nañ ci benn misaal daana wax ne képp koo xam ne daa bëgg mbooloo moo ñëw ñëpp jóg taxawal la waajal place ba ngay taxaw ci sawara loolu ñu bàyyi ci xel bu baax lépp loo xam ne façon jaamu la rukkoo la sujud la lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la doomu aadama bul nangul sa moromu jaam defal la ko ndax yow même bu dee bokkaale wu ak yàlla dara waaye ay nit di la bokkaale ak yàlla yéeni ànd yéen ñëpp dem sawara innakum ma taabuduna min dunillah xasabu jahannam mi ngi noonu Cheikh Ousmane ah waaw naam borom bi subhanahu wa taala kon day wax foofu rek ni ñoom bu ñu déggee safara daañu fa nekk di am zafir soo delloo ci am am borom bi mu ni shahiqun wa zafir zafir mooy génne ga ñuy génne seen nokke ga te it amul kii génne nokk ca fekk lu dul daa fekk nga dugaloon ko ca mooy safara suñu borom yàlla subhanahu wa taala kuy dugg safara dalay pompe pompe ba ngay def ay centaine de kilomètres ci la nga xam ni muy rëyaay safara boobee ñu koy noyyi muy dugg seen biir yaram ya di lakk ci biir yaram bi ni ngi noonu wa ma adraka man xotama naarullahi almuqada allati tattaliu ala al afida dañuy xëcc sawara bi muy dugg seen biir yaram bi di ko lakk gannaaw ba ñu koy génne shahiq wa zafir loolee nga xam ne moom la waa safara nekkee suñu borom mu ne wahum fiha la yasmaun kenn du dégg kenn te loolu da ngay gis ne day tax ba mbugal ma gën a tar ci moom mbokk mi ngi noonu yal na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci barakallahu fiikum suñu borom mu ni ñooñu nga xam ne yàlla gërëmoon na leen ñu leen di jaamu seen gannaaw laa yasma'uuna xasiisaha ñoom day duñu dégg coow la sawara di coow ci bu nekk day nekk di lakk la nga xam ne moo nekk ca biir wahum fi ma ashta- wahum fi ma ashtahat anfusuhum xaalidun ca ñoom day daan nekk ca lam xemmem seen bakkan ya di ca sax ba faw laa yaxzuruhum alfazau akbar du leen tiis la nga xam ne mooy tiitaange bu gën a màgg ba wa tatalaqaahum almalaika dana nekk di dajeeg ñoom malaaka ya haada yawmukum alladi kuntum tuadun naan leen lii de mooy seen bis bi ngeen nekkoon ñu leen koy dig yawma natwi samaa ka sayyi sijili lil kutub bis ba nga xam ne dees na lem asamaan yi comme nañuy lemi këyit ya nga xam ne dañ koo jël di ko binde kama badana awwala xalqin nuidu comme nañ commencé woon jël benn bind ga noonu lañ koy baamu waadan alayna lii dig la boo xam ne bu nekk ci ñun yàlla inna kunna fa'ilin ñun day nekkoon nañu doon ñoo xam ne dañuy def loolu wa laqad katabna fi zabur min ba'di zikr ñun day bindoon nañ ca zabur am ñu ne mooy zabur bi ñu joxoon daawuda am ñu ne zabur mooy téere yi ñëw wàcc kaw asmaan yépp min ba'di zikr gannaaw bañ ko bindee ci lahyul mahfuz ca alluwoo ja yàlla denc ca kaw anna al arda yarithuha ibadiya salihun mooy lii di suuf day suuf bi day dana ko donn sama jaam yi nga xam ne ñooy jaam yu baax ya inna fi hada la balaagan li qawmin abidin nekk na ci lii nag la nga xam ne mooy ak jotal mooy xabaar yu ñu jotal ba mat sëkk ñeel xeet boo xamee ni nii dañuy doon ñuy jaamu seen boroom mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax la nga xam ne mooy safara na muy nar a demee boo demee ci yeneen saar nee na tarmi bi shararin kal qasr ferñeent ya fay tippe day mel ne ay château waaye ñi nga xam ne yàlla dawa dogal ak texe ci ñoom ñoom day duñ fa dugg duñu dégg it coow la nga xam ne moom lay àndal bal ñoom kay ña nga ca aljanna nekk ca la nga xam ne xemmem ne ko seen bakkan ngalawaay mbokk yow mi bëgg a noos rek fexeel jaamu yàlla adduna amul noos noos gaa nga aljanna mooy foo xam ne loo bëgg rek yàlla defal la loolu àjjana rek la am ashtahat anfusuhum loo bëgg rek yàlla defal la amul lu muy xaar da'waahum fiha subhanaka allahumma mi ngi noonu heure boo nee subhanaka allahumma yàlla subhanahu wa taala defal la nga bëgg borom bi nag nee na dañ fay sax ba faw tiitaange bay am bi si pénc ñoom day duñ ci bokk mooy ñépp ña nga xam ne yàlla gërëmoon na leen ñu nekkoon ñu baax tiitaange bay am keroog bi yàlla di atte ay jaamam duñ ci bokk malaaka yi ñooy dal ci ñoom dépp ñu génn seen bàmmeel yi di leen wax na seen xel dal fitne yi dana tar coow li dina bëri waaye yéen moom bokku leen ci gis ngeen comme naka yàlla waxe ci ci yeneen aaya yu bëri rawatina suratu fusilat kon loolee da ngay gis ne malaaka yu tëdd yooyee dañoo xam jaami yàlla yiy jaamu yàlla looloo tax buñ dajee ñoom liñ leen di wax nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia ñun ñoo nekkoon seen i xarit seen i soppe ca dunduk àdduna te mooy ni suñu ndaw ñi dafe tey ci football beeg ak sportif yeneen yu dul jeex nga xam ni ah ñoo leen gën a lu mën a doon mbokk malaaka noonu lay bëggee jaamub yàlla noonu lay sawari ci jaamub yàlla ba nga xamee ni nii da ngay gis rasul sallallahu alayhi wa sallam dañu ci wax yenn xadis yoo xam ne malaaka bu gisee jullit buy nekk di jàngal quran da koy jege-jege boo xam ne nii danay dem ba léeg-léeg sax la muy jàng di dugg ci gémmiñam ngir bëgg gëm ko bëgg ñun ñu nekkoon seen i soppe ne seen xel dal coow li yéen bokku leen ci bég leen lépp lu leen yàlla digoon tey ngeen koy gis borom bi nag di wax loolu kañ lay doon nee na mooy bis bi nga xam ne asamaan yii nga xam ni tafsir bale passé am na lenn luñ ci doon wax ci li ci scientifique yi gis ca la leen ca yàlla war te ñoom ñooñu nangu nañu ne kenn mënul wax ne am na benn taux bu ñu mën a gis ci asamaan yi du un pour cent du un pour mille kenn xamul asamaan yi fu mu yem suñu borom nee na yow mi jëloon sa feuille bind ci feuille bu ba pare baxañ ko def sa poche yowmal qiyaama noonu la yàlla di leme asamaan yeeg suuf loolu mbokk lu yéeme la te yonent bi alayhi salaam nee na day mel ni ay pepp dugub ci loxo kenn ci yéen kon suñu borom mbokk kenn mënu ko takk mi ngi noonu laysa ka mislihi shay'un mi ngi noonu jàll wa ala nee na dana lem asamaan yi ak suuf comme ni mu commencé woon bind gi dana ko baamuwaat yow doomu aadama keroog bi ngay génn sa biiru yaay ne cëpp ci kaw suuf bés dana ñëw nga génn nunu sa bàmmeel taxaw ci kaw suuf yonent bi alayhi salaam nee na dañuy def yaramu neen kenn du sol mbubb kenn du sol dara xattaa li ñu daggoon ci yow bi ngay jong sax lépp lay dellu siwaat kama badana wala xalqin nu'id lépp dañuy dellu borom bi nee na loolu maa ko digg ci ñoo koy def waadan alayna inna kunna fa'ilin mi ngi noonu ca mbokk ki mën a bind asamaan yi man koo lem yawmal qiyaama lu mu digg ñu war koo gëm am déet la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nas mi ngi noonu bind gi yàlla bind asamaan suuf moo gën a màgg bind gi bind nit ñi borom boobu nag ne dogaloon naa ci téere yi mu wàcc yépp ba ma ko dogalee ca téere bu mag wa nga xam ne ca laa bind dogal ya muy lax yu mahfuuz ne suuf si day sama jaam yi baaxee dañ ko doon suuf yooyu ñaari suuf la mooy suuf bi ñu toog suñu boroom ñi ngi ko doon donn la jaamam yu baax yi ba mu ñëwee ci xawmu nuux ñu weddi dafa ramas saay saay sa bàyyi fi ñu baax ña xawmu huut mu ramas saay saay sa bàyyi fi ñu baax ña noonu la doon defek ay yeneen tam ba suñu xeet bi tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa adduna tukki yàlla dana tasaare lislaam dugal ko fépp ci kaw suuf jullit ñi contrôler kaw suuf léppam ci teddaange koy tedd dugg ci ak toroxal ku ñuy toroxal loolu mooy suuf bu jëkk bi amma suuf bu dëgg bu mag ba nag mooy suufas aljanna boo ko suufas aljanna ña koy donn mooy jaami yàlla yu baax yi as-saalihiin mooy kan mooy ka nga xamee ni nii digganteem ak boroomam rafetal na ko digganteem ak moroomam rafetal na ko ibaadiya as-saalihuun borom boobu mi ngi ñu ko wax ci aay yu bari mi ngi noonu alhamdulilah alladi waada sadaqa lana waada wa awrasana al arda natabawwa min al jannati haysu nasha comme na mu koy waxee ci zumar loolu nga xam ne mooy aljanna ña koy doon mooy nit ku baax gëmoon yàlla bokkaale wu ko ak dara waaye yéeféer du dugg aljanna bokkaale ko du dugg aljanna borom bi nag ni alquran ji nekk na ci balaax muy ak jotal ñeel ñi nga xam ne dañuy jaamu seen borom. yow mi bëgg a jaamu sa borom yoon waa ngi nii mooy alquran yow mi bëgg a texe àdduna ak alaxira yoon waa ngi nii muy alquran suñu borom bàyyi lu la ci dara te lii mooy xabaar bi mujj xabaar bi sax boo xam ne xabaar du ko folli yal na yàlla dolli jéggal yërmaane suñu mbokk bi El Hadji Fadour Gueye mi ngi noonu tey journal yi da ngay wax toujours rajo boo jàpp wala kii ñu ne waaw dernière nouvelle yi ñu fi dikkal mënoon nañu am ay xabaar am ay xabaar yu ko wecc da daan wax nag moom la koora mooy dernière nouvelle l'ultime dernière nouvelle xabaar bi mujj xabaar bi nga xam ne beneen xabaar dootu ko folli ba ilaa yawmi diin mooy li ñu yàlla wax ci téeréem bi leneen lu la nit wax mu safaan ak moom wallahi alku na bëgg la alagaale waaye lii rek mooy la yàlla santaane yàlla na yàlla wërsëgal ñu mooy ci ba tabbi aljanna mi ngi noonu Cheikh Ousmane
wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiin قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن
jazakumullahu xayra suñu borom mu ne yow yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni wu ma la lu dul yërmaande ñeel mbindaa fan yi qul innama yuha ilayya neel man de dañoo wax yu jëme ci man ay dañoo xamle jëme ci man annama ilahukum ilahun wahid na seen yàlla day yàlla benn la fa hal antum muslimun ama ndax du ngeen nekk ñu koy jébbalul fa in tawallaw su dee ne dëddu ngeen wala gannaaw fa qul azantukum ala sawa neel xam leen ne day yëgal naa leen ci ak yemoo wa in adri aqaribun am baidun ma tuadun xawma nag ndax lu jege la wala lu sori la la nga xam ne moom lañ leen di dik di leen ko tëkkoo innahu yaalamul jahra min al qawl seen borom yàlla de moo xam la ñuy feeñal ci ay kaddu wa yaalamu ma taktumuun ca moo xam li ngeen di nëbb wa in adri laallahu fitnatun lakum wa mataaun ila xiin xooma ndax lii ngeen nekke fitna la bu leen yàlla di fitnaal ak xéewal gum leen di xéewal ba ci jëmmi jamono rek qaala rabbi xkum bilxaq noonu la yonente ba waxee ne yàlla atteel ci dëgg wa rabbuna arrahman ñun day suñu borom yàlla mooy arrahman borom yërmande ji almustaanu ala ma tasifuun ci moom rek la ñuy dimbali ko ci la nga xam ne yéen nga koy melal mi ngi noonu mbokk suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu borom nee na yónni wu ma la lu dul nga nekk yërmande ñeel mbindaa fon yi te it noonu la meloon yërmandeem jooju ci àdduna la commencé ba nga xamee ni ki xam sunnaam kooku mooy doom ji gën ci doom yi ndax la ko sunna di jàngal mu war koo jëflanteeg ay waajuram ki xam sunnaam mooy baay bi gën ci baay bi ki xam sunnaam mooy buur bi gën ci buur yi ki xam sunnaam mooy dëkkandoo bi gën ci dëkkandoo yi léppam yërmande la jihaad ba mu doon jihaad lu mu daan wax bu leen rey xale bu leen rey jigéen bu leen rey màgget ku ngeen fekk ci toolam bàyyi leen ko fa ku ngeen fekk ci place mi jaamu yàlla bàyyi leen ko fa noonu la ñuy gis xatta ci li tubaab bi gën a bañ muy code pénal yi wallahi yërmande rek la tey jii buñ lay wax la nga xamee ni nii mooy en taux yi am ci wàllu dee ci sida suñu borom waxoon ne ki nga xam ne day am na soxna ba pare wëlbati ko dem di njaaloo ki am jëkkër wëlbati ko dem di njaaloo rey leen ko loolee mbokk lam ma nunu sauvé kenn xamul nu ma toll boo xoolee tey jii fan yi rek maa ngi dégg sama mbokk bi journaliste Sakho yal na yàlla sàmm ko di fàttali ne au Sénégal li ñuy tuddee taux sida ñi ngi toll ci zéro cinq pour cent ci population bi pour nga mën a dégg dañ naan junni nit ñu nekk juróomi nit ñoo ci am sida yal na yàlla musal ñu ci amma boo demoon ca place góor jigéen ya ak drogueman ya ñoom ñi ngi ci vingt sept pour cent xam nga loolu lu muy firi mooy junni yu nekk deux cent soixante dix ñi ngi ak sida ci Sénégal gi loolu bokk da ngay gis ñooñu dans peu de temps ñu dee bala ñoo dee ñaata la ñuy yóbbaale ci dee googee loolu mooy mbir bi criminels yi nekk fii tey xoolal li ñuy jugé ci cour d'assises yi fekk as gor mu liggéey këram liggéey teraangam nga fekk ci këram rendi ko temps yi ñu ngi ñuy wax ay jugement yu ngeen xam ne yéen yëpp dégg ngeen ko après lan mooy war a am ci jugement bi ñu ne bon tëj nañ ko peine bi gën a garaaw lan mooy peine bi gën a garaaw tëj nañ ko à perpète dañ koy tëdd giiru dundam d'accord ñu tëj ko giiru dundam après dugal ko ci place muy añ di reer di ndekki di entraînement di damye di bëloot gars yi loolu kaddee moom ñàkk bakkanam ndax loolu justice la abadan loolu justice loolee mbokk kon islam léppam yërmande la islam suñu borom yàlla yemalul yërmande ci nit ñi arasul salaa sallam jox ñu ñaari extrême misaal yoo xam ne ngalawaay li ñuy tuddee droit des animaux su doon tene ne tuuti xel mi ngi ci ñoom seen royukaay bi gën a rëy mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal yonent boobu ne yàlla dana tabbal nit koo xam ne ku sàgganoon la ci kaw suuf dafa sàgganoon de waaye yàlla dana ko tabbal aljanna ngir benn xaj la yërëmoon may ko mu naan yàlla dana dugal sawara benn jigéen boo xam ne benn muus benn wund la jëloon tëj ko ba mu dee loolu ko yóbbu sawara xoolal ñaari extrémité yooyu lii mbokk mooy yërmaande ci bàyyi may li ñuy tudde xatta les écologistes di ñuy rey ak pollution yi am ci atmosphère bi ci géej géej ci nangam xoolal tiiram yàlla bi yàlla indi suñu borom mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañu nekk aladul xisaar wa ida tawalla saa fi l ardi li yuhlika alxars wa nas wallahu la yuhibu lfasad aka bari ñoo xam ne dañuy wër ci kaw suuf di yàq tool yi di yàq njur mi ci yàlla bëggul yàqkat loolee kon mbokk da ngay xool raxma boobu day feeñ fu nekk feeñ ci wàllu diina ji feeñ ci wàllu atte yi feeñ ci wàllu doxalin yi feeñ ci lépp loo xam ne am nañ ci kaw suuf wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mi nga ñëw na sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nag daal di ñuy wax ni ngal la way xam leen ni liñ ma wax yu mooy yàlla kenn la yàlla kenn la ndax du ngeen ko jébbalul ngal la way julit xamal ne yàlla bi ñuy jaamu kenn la ki nga war a jébbalul kenn la jullit kam yi jébbalul mooy boroomam subhanahu wa taala jébbalul yàlla mooy nangu ay ndigalam la la ca neex ak la la ca naqari la nga ca comprendre ak la nga ca comprendreul yàlla kese kese la jullit war a jébbalul fa hal antum muslimun amma bu ngeen duddoo wone gannaaw yow yenent bi ne leen maa ngi leen di xabaare loo xam ne ñoo ci bokk yem amu leen lu ma leen di nëbbu li ma xam wax naa leen ko ñoo bokk léegi xam-xam bi azantukum ala sawa léegi nag li leen yàlla dig ci ni bu ngeen jaarul fa ko neex dana leen bëggal xawma jege na xawma sori na te mbokk julit mboolem yeneen ci yàlla bokk na luñ doon jàngal seen xeet man nit laa comme yéen yàlla lañ war a jaamu kumpa yàllaa ko xam man xawma ko xawma ndax li leen yàlla di dig jege na wala jegewul xawma ko mi ngi noonu li ma xam daal mooy suñu borom yàlla ku jaarul fu ko neex dana la mbugal te it aaya yi ca màkka la ko doon jàng yàggul dara yàlla génn ko yóbbu ko madina ñu teg ca daanaka ñaari at yàlla dajaleel ko mboolem kilifay màkka yi ko gënoon a sonal ca badr mu rey ci juróom-ñaar fukk sànni ca teenu badar ba yeew juróom-ñaar fukk yóbbu madina kon la ko yàlla digoon wax na ko ci loo xam ni lu jege la sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nag ne moom moo xam lépp lu nit ñi wax ci kaw moo xam ni nit ñi nëbb ci seen biir dënn yi même buñ waxuñu ko loolu borom bi subhanahu wa taala teg ca yit ne xawma ndax yàlla da leen a bëgg a fitnaal te mooy xañ leen ak njub ca ab yonent mënul lu dul waaraate yàlla nag mooy nattu ku ko neex ci ay jaamam ba du dugg ci njub xawma lu dul ne yàlla da leen a bëgg a bàyyi ngeen bànneexu ba jëmmi jamono ca lu mu yàgg yàgg dana leen jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nettali nañu ne nee na yàlla yàlla na nga atte sama diggante ak sama xeet ci dëgg qaal rabbikum waxkum bil xaq daa dina nag ñun dey yàlla mii borom yërmande ji moom dong la ñuy dimmini ko ca la nga xam ne yéen a ngi koy melal mbokk lii mooy tëj saar bu màgg bi di suratul anbiya nga xam ne lañ leen cee waxoon ca njëlbeen mbokk xam leen ni julit ñi suñuy référence mooy yenenti yàlla yooyu ñu yàlla te nettali seeni jaar-jaar nettaliwuñu ko lu dul ñu jël leen def leen ay misaal lépp loo xam ne dal na ci yow ci kaw suuf boo xoolee am na ab yenent bu fa jaaroon nga jël ko comme misaal yàlla ma leen teete woon ala siratul mustaqim yàlla na yàlla teete ñu ca seen yoon feneen yàlla nar a dëkkal muy firdawsil aala yàlla na yàlla def ñu nekk seeni dëkkandoo wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain koo xam ne nii dafa doon ku bàyyam jur ca la nga xamee ne nii ci njaaloo la ko juree ndax loolee dana gis ne day am aq way jur boo xam ne da koy def ak moom ala kulli xaal su xamee ne nii moom mooy way juram muy benn gannaaw ba mu yëg ni moom kat loolee mu defoon tuub na ko dellu na ci yàlla la nga xamee ni nii mooy ak way juram mën na koo sàmmante ak moom ndax la chaque ne bu saxee ne mooy way juram araam na muy dem di séeg ay doomam ak i ay sëram ak yu demee noonu loolee kon dañuy gis ne ñaar yooyu daal bu ci amee benn wóor na ko ne kii mooy baayam ñaar wóor na ko ne kii lam defoon tuub na ko loolee dara nekkul ci mu sàmmal ko àq yi nga xam ne waajur da ko am wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaw mooy seytaan sawara li mu wax ni mooy day duñ ko dugal sawara ànd ak ñaka doon jaar loolu xelam bi ñu samp bi ci dellu wala si seytaan ngay dellu beneen bi lii bi yàlla wax ne sama yeneen bi wax ne sama xeet dañ gàdday alxuraan gàdday bi naka lay def
wala kulli xaal ci li muy wax ndax ñi xërëm yi ñuy dugal al safara ndax seytaane lay doon wala xërëm yi xërëm yi ci boppam ñooy dugg safara xërëm bi deful dara waaye yàlla mooy jël ngir toroxal yéefir yi bokk leen ak yi leen doon jaamu moo tax borom bi wax naan waquluha naasu wal xijaara te la ëppoon ci yéefir yi rawatina yéefiri màkka yi ay xeer lañ doon jaamu loolee kon dañuy gis ne mbir la moo xam ne nii yàlla subhanahu wa taala moo koy def comme ni yàlla di génne ay garab ci biir sawara ca garab yooyu ñoom defuñu dara loolu abadan du nekk mbugal ci ñoom bu dee ne ci wàllu li ñuy tuddee yonent bi alayhi salaam bi wax ne inna ya rabbi inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura loolee sama xeet dañoo gàdday alquran lañ koy jëkke firi mooy gëmuñu ko dañoo jël alquran wan ko gannaaw gëmuñu ko comme la yéefiri doon wax naan la tasma'u li hada alquran wal xaw fii alquran bu luñ ko déglu indi leen ay coow ba kenn du ko déglu loolu moom mooy lu jëkk li la nga xamee ne mooy taxa alko doonte ne nag bokk na ci tamit loo xam ne ak càggante la mooy ab jullit nekk ci kaw suuf ci itti woowul alquran jéemul jàng alquran jéemul xam alquran te boo ko laajoon am na maîtrise am na doctorat boo ko laajoon lu ne ci àddunaam xam na ko waaye téereb yàlla bi toppatoowu ko bu dee ne nag gàddaay gay dafa nekk ci da ko woon gannaaw ci ñàkk jëfe la ca nekk kooku moom day doon lu ko alak te mooy la alxuraan woote ci julli ci koor ci at makka koo xam ne loolu nga gàddaay loolu moom da lay alak waaye daal nañu xam ne gàddaay googu ay étape la yoo xam ne nii ba ca gën a néew mooy di bañ a jàng téereb yàlla bi wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam ndax boo amee bijjaaw man nga ko ñuulal loolu mbir la boo xam ne nii borom xam-xam yi dañ ca am ixtilaaf te mooy la gën a mucc ayib mooy bijjaaw nga soppee ko leneen lu dul lu ñuul amma bu dee lu ñuul la da ngay gis am na ay xadis yoo xam ne ni da caa tëkkoo am na ñoo xam ne nii daganal nañ ko am na ñoo xam ne nii dañ koo araamal ku mel ne Cheikh Nasrul Albani day wax ne ñaka daganal xadis yi ñuy sukkandoo yépp dañuy wax lu ñuy tuddee ñuulal lu ñuy tuddee katam te loolu nekkul ñuulu noir comme ni karaw ñuuli loolu dafa mel ne lu yegg ci gris mboolem kuñ la wax ci saxaaba yi loolu la doon def mooy du ñuulal boo xam ne dafa mel ni karaw naturel mi ngi noonu ku mel ni Cheikh Ousseynou nit lu mel noonu lay wax ala kulli xaal ixtilaaf da caa am ca borom xam-xam ya bokk na la gën a mucc ayib mooy boo bi jaawee nga soppee ko ay fuddan wala ay leneen loo xam ne bokkul ak ñuul kukku loolu la ñuy wax ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam bismillah waaw waaw ñaar ñu xuloo ci mbiri àdduna rek ñoo tax ñu xuloo loolee ñu ngi nekk ci ay bakkaar ay bakkaar yu garaaw yoo xam ne war nañ fexe jéem a juboo ki gën ci ñoom mooy ki jëkk a nuyu moroomam su ko defee daal la lislaam di bañ mooy ngeen rombante kenn du nuyu sa moroom ca loolee dem ba paase ñetti fan amma bu dee ne loolee dafa sax xam leen ne yéen a ngi ci ay tëkku ndax yonent bi alayhi salaam nee na yàlla buy baalee altineeg alxamis danaan malaaka yi ñi ñoom seeni bakkaar xaar leen bañ juboo ngeen doog leen baal wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam alayhi salaam waaw masa bopp day la xadis ya nga xam ne moo ca root mën naa la wax bu dem quatre-vingt-dix-neuf pour cent benn yoon la ñuy wax moom la ñuy masa suñu bopp am na ci nag benn xadis boo xam ne nii am na ñu ko wéral ko mel ne Cheikh Nasrul Albani wéral na ko ci masa bopp ñetti yoon doon te ne ne boo demoon ci ixtilaaf yi mu am ak yeneen borom xam-xam yu mel ne ay Useymin téere boobu di ko boole da ko cay boole ala kulli xaal nañu xam ne daal su doon te ne waa ji da ko def léeg-léeg ci dundam duñ ko wax mën nañ koo tere ndax xadis ba ca rot waaye bu dee ne ci wàllu njàpp moom ña doon nettali njàppam yonent ba la ci ëpp lañ nettali mooy da ngay teg sa loxo mu dem ca gannaaw gannaaw ba nga dellusiwaat ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam aleykum salaam wala kulli xaal masala boobee nga xam ne mooy taxawal doomu doomu aadama yi dañu xam ne daf ci am lu cay xaraam am ci luñ ci sib koo xam ne nii da nga jublu ne yow day fokk nit ñi dañ la war a taxawal taxawal la màggal goo xam ne dafay jëm ci ak ak jaamu loole moom la chaque ne borom xam-xam yëpp bañ nañ ko mu des nag ñoo xamee ne nii seen aada taxaw boobu dañ koo jàpp nuyoo dañ koo jàpp am nuyoo mooy kilifa buy dugg ñu nuyoo ko taxaw loolee moom da ngay gis ne su dee ne mën nga koo bañ a def mooy la gën lu ñu sib la waaye nag bu dee mënoo ko bañ a def lu mel ne ci tribunaux yi ak yu demee noonu loolee da ngay gis ne nekkul di yegg ci loo xam ne lu xaram la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam allahuma lu dul yow miñ koy defal soo bu dee ne am nga wax leen buñ la ko defal loolee moom da nga leen wax buñ la ko defal wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam naam naam waaw bismillah
ñooy jàpp mooy des institutions te yaakaar naa bu bu ñu jëgal nit c'est c'est institution bi ñu représenté la ñuy jëgal waa mais pas en tant que nit en tant que loolu la ci la la ci sàmm wala ku li xaal jógal institution bi ak jógal yëkk yëpp benn jaaduwu ci mbir bi kay mi ngi aju ci kii nga xam ne da koy def ci wàllu jaamu yàlla jaamu ci wàllu jaamu institution bi wala jaamu ñetti comme kiy taxawal xërëmam wala muy toog ci xërëmam comme na ko Ibrahima doon tere xeetam wala koo xam ne ñoom seen aadi réew dañ koo def moo xam ne nii ay genre nuyoo lañ ko lañ ko duggee su dee ak jaamu yàlla nga ca la fa xaraam jullit du ko def su dee ne wàllu nuyoo la dañ naan sip nañ ko jullit boo ko mënee bañ a def bu ko def loolu la ñuy wax ci wàllu googee amaa nag bu dee ñàkk gaa def ko mën na laa jural ay fitna su boobaa da ngay gis ne kenn du la tere nga def ko ndax lu ñu sit la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ah ah waaw waaw bismillah waaw waaw ci wàllu dekk yi ëllëg bi lay wax maanaam ñi nga xam ne yàlla da leen terale ëllëg bi ñuy dekk ñooñu nu ñu maanaam nuñ mel daal la leen yàlla jarale ba tax ñoom duñ duñ sol ay yére maanaam dañuy sol ay yére
ndax ñiy dëkk lu ñu sol ay yére loolu xattaa yonent yi ca la ñu bokk képp koy génn sa bàmmeel yaramu ñan ngay génne loolu la yàlla subhanahu wa taala dogal gannaaw ba suñu yonent alayhi salatu salaam nee na la malaaka yi jëlee ay càngaay ca ajjana lu jiitu loolu su ne Aïcha laaj na ko na ko ah góor ak jigéen yaramu neen mu ne ko Aïcha tiitaange bi nit ñi dekkee paase na ngay taxaw naan ndax góor laa gënal wala jigéen kon nit ñi bu ñuy dekk dañuy ànd ak tiit boo xam ne du ñu xalaat ci xaal bi ñu nekkee gannaaw ba nag bu yàlla dee dalal tiitaange ba ca lay indi ay mbubb jële ajjana yonent bi alei salaam nee na ibrahima la ñuy jëkk a woddu gannaaw boo ñu jox ma sama koddaay moom moo gën ibrahima waaye tey boo àndoon yàgg sa baay ngeen defeer mu neen ñu jox leen ab sér da nga koy woddu bàyyi sa baay am da nga ko jox sa baay ngi naan kon ibrahima moo nekkoon la nga xam ne mooy mooy mooy baayam wala kulli xaal mbokk bi mi ngi wax naan mi ngi guddi li ñuy wax rek mooy di bàyyiloo xel ala ci biir bi may wax xëy na am na ñu déggee ci ne ñu wax taux sida bi jàppoon naa ne dama ne zéro cinq pour cent la ñu wax population Sénégal zéro cinq mooy benn mooy tey li ma la wax rek junni bu nekk juróom yi mi ngi noonu mooy cinq sur mille mooy zéro cinq pour cent mi ngi noonu boo demee nag ca prostituée ak yi dema noonu ñoom ñoo nekk 27 pour cent nga xam ne boo ko doon xool day nekk 270 sur 1000 kon loolee la ñuy bëggoon a jubli ci loolu gannaaw ba mooy mbokk yi am na benn woote bu ñuy wootee fële ci juma Abu Obayda ci Cheikh Ousmane mi ngi am naam le premier février waaye gars yi dañu bëggoon ab liste bu ñuy déposé ci groupe sanguin avant loolu te mooy ku bëgg a maye deret liste baa ngi fii mu bind ci turam ngir ñu am nombre boo xam ne daan tax gars yi mën a déplacé wu te xam leen ne loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy suñu jamonoy tey jii mooy maye deret képp koo xam ne yaa ngi nekk entre 18 ans ba ba ca passe woo duggoo 60 ans da ngay gis ne ngallaawaay di maye deret da nga ciy sauver bakkan yoo xam ne xamoo leen sax mi ngi noonu yal na yàlla yombal ko ñi nga xam ni dañuy bëggoon a barkeelu ci cotisation 1000 francs yi ñu bañ ko bàyyi xel yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain